ñun dañu collé motif ñun dañ jàpp waa Wakaam jàpp leen comme ay mala ñun xoola on est des Wakaam waa ay fier de l'être dañ bàyyi suñ booy ñu tranquille et puis jàmm am ñun amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy tiit dama bëgg Augustin Senghor ak Saer Seck ñoom ñooy responsabilité ñi dee stade parce que ñoom ñoo organisé te amul ay policier bu fekkente ne bii da nga am sa kër kër gi war a am trente personnes nga dajale fa deux cent personnes organiser fa spectacle bu jëyee amee yow la jël dans tous les pays yi nga xamante ne si àdduna yoon moo fay dox su fekkente ne lu mel ni am na li nga xam ne moom la kilifa yi réew ma jëkkay def mooy ña nga xam ne ñoom la ñu organisé woon dañ leen di jël téye leen teg leen loxo daal di progresser l'enquête. waa Mbour ñun dañu amee doom ñoom ñu amee doom li leen dal mënoon naa dal si ñun bi mu dalee si ñoom ñun ñëpp la suñuy xol tàng. tëddul nelaw dañu fanaanee jooy ba ba set ndigee am naxal parce que dañu jur ay doom te ku nekk xam na ni doom mel si nit ki mboon nag am na yoo xamante ne bu amee dañ say àndax gëm yàlla ki war a dee bu tëddee si lalam dina dee. mooy dañu xëy xëy rek jublu si waaw waa Wakaam ne ayca nañ jëli ji waa Wakaam nañ leen enquête nañ leen tëj nañ leen détuli nañ leen def laa mais non warul demee noonu mais dafa am lu am dañu dëgg fan yii ñu ne Sidiki Kaba. daje na ak ñoom euh, Augustin daje na ak ñeneen ñu daal di wax ba la sanction sportive est tombée maintenant il reste la sanction pénale je di que il va trop trop vite en besogne ce n'est pas comme ça. bu ñu jëlee xale yi embarqué suñuy doom yóbbu ne dañu leen di tëj te sàccuñu fenuñu reyuñu nit jamuñu nit loolu dañuy laaj loolu lan la duñ ko nangu. ca nangoo ëllëg non nañ ñu bàyyi nañ ñu bàyyi tranquille bu ñu bàyyiwul ñun dañuy yëngatu yàq Dakar lu leer laa la wax instant bi on est on est prêt à tey nag indi nañ xale yi ñu ngi leen di téye jël nañ décision li ko jiitu parce que décision bi bii exclure US Ouakam de toutes les compétition mu ngi génn le 29 juillet avant les élections ñu bloqué ko xaar ba élection yi jàll le 4 ñu soog a génnee jugement bi ça veut dire que donc am na une démarche politicienne boo xamante ne bi moo nekk si biir. autorité yi laay waxal damay wax ne li ngeen ma faye jekkul li ngeen ma faye le gouvernement sénégalais jekkul bu wakam bu wakam basculé woon doo leen gagné département de Dakar ñu takk suñu ndigg jàppale la yow président de la république. xeex ñii ñu jàpp tey àndax ñun ñuy xeex dëkk bi jox leen une victoire ngeen bàyyi ba élection yi jeex ngeen ñëw jàpp ay doomi wakaam ñu dëkk wakaam moo ñu gënal lu ñu am dina amaat mm-hmm. am na bii jàll na beneen a ngi ñëwaat